شكري مع الكل بيسا لو ولد دون سقط عند سرسالا أمدي وسكري لمن كل بيسا لو ردان دون سقط عند سرسالا لو سنع واريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني دايما انسى اعوذ بالله بسم الله ان ولي الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جوليدي مبوك طالبي نوغي لين دي نيو دي لين سياره باخ دي سانتات يالا باخ تي توفيخ جيم نو ديفال ني ديلسوار تي بسمي غا خامني moy bis bi nu baxu amal at mu jot te moy bayiko fi ci Touba dem Sarsara ci Mauritanie di sante yalla nak di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul muntaka sama borom yalla may ko fan gudd loolu ak wér ak mbollem talibi yi santaat bu baax a ji nu baxu andal, moy soxna mam isa Mbacké ONC presidente ONC ONC Ahlu cafe delis wat nañ fasiyene andat ak yeen départ wat fi ci ngir fasiyene dem Sarsara inshallah taala nu ñaan sama borom yalla defal nu jam ak xewal ci bir lool nak fas nañ andak ànd ak ci bokki taalibe bi nu wax nu départ bi naka la ak fa lañ ñu jëm muy char sara inshallah taala kon Serigne Cheikh chambre dag may top rek nu xol bokki taalibe bi nga xamne ñi ngi waaj ngir bëgg dem char sara lillahi kul lilada abarumay kurmatin minartelna wa fi ajma man sara innal ladhi نيله سردر خير قسدو سيارة الفارخ دائرين أوشا بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi am mbégte àndaat ak yéen ci seen màggal gi nga xam ñu koy amal at mu jot muy ziar Sarsara te Mauritanie xam ngeen ne nag at mu jot fii la déparé ci Touba ci Touba Daaru Mandaan ànd ak nag ak euh, ki nga xam moom mooy daayira wala ONG Ahlu Café soxna maam Issa Mbacke nekk ci bopp ba ànd délégation boo xam ne tamit mi ngi leen di teeru ñu ànd daje fa li nga xam moom mooy Louga comme ni ñu ko baaxoo di def at mu jot rek bala ñuy départ soxna si day yëkkati ay kàddu ñaan euh, wax ñu tamit yëg-yëg bi nga xam ne ni moom lay am at mu jot ci bu ñuy départ rawatina ci waxtu wi nga xam ne buñ julee fajar ba pare janoog nag jumaa ji nga xam ne foofu la ñuy jàkkaarloog jëm heure jubali hmm. soxna si ziar Sarsara namoon na la daaw ndax gis nañ ne tamit maanaam dafa mel ne da ngaa tamit waaye ren tamit mu mel ne liggéey bi tàmbaliwaat ko. waaw ah, bismillahi mina shaytaan rajim bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bu baax ci teewaay bi ñu teewaay fii ren yàgg fee teewaay at comme ni nga ko wax nag waaw nag dem ma woon waaye coobare suñu borom la waaw ka taxoon dem woon yal na ko yàlla xare àjjana ay fa suuf ci kawam jéggal ko mboolem mbay dawli yëpp ñu santaat yàlla bu baax ndax mu neexoon du ñu fekk rek mu fekk ñu fi ñu waajaat dem kon loolu sant yàlla rek la ñu koy waaje ci kër Sëriñ Tuubaa gi nekk ci Daaru Manaan at mu jot ñu fi waaje muy wane ne rek ñun dañoo nekk ci liggéey liggéeyub Sëriñ Tuubaa guddeeg bëccëg suba ak ngoon ci lañ nekk moo tax ñu mën a départ fii wuti Sarsara béréb bu tedd ba nga xam fa la Sëriñ Tuubaa nekkoon gis fa ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu joxe ko fi werdu maa bismillah mu ne béréb bi képp koo xam nga ma fi taggo nak bakaru bàkkaaru àdduna allah xala te la mak ñu bari taggo won ak bàkkaar ngir buñ daan ku tedd cheikh amadou Bamba muy ku bax ku yu tedd ko ko xam liggéeykatu sallallahu alaihi wasallam la koku mo cheikh amadou Bamba ñu fa dem ñu ñaan yalla eggale ñu fa ci jamm ak kep ku bëgg na ak way man de joge rek ci senegal ak ci rew mi jëm mauritania yalla na yalla tek ci yoonu jamm ñu ne yàlla te ñu ci yoonu jàmm ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm lépp luñ fi liggéey Sëriñ Tuubaa nangul ne ko euh, xam naa ne dañuy àgg ba ca kon daan gën a waxtaane muy ci frontière bi gën a wax ci li nga xam ne moom lañ ko xam naa rek euh, ñu jox la rek euh, tamit ñi ngay ziar ci kilifa kër kilifa yooyu rawatina rek waa ak njabootam gi nga xam ne ni am nañ jot ne dana fa teew. waaw di ziar Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu baax di sant bu baax ci tudde gi ñu ko tudde di sant ci kilifa yu tedd ya magam yu baax ya, rakam yi ya ñu ko tudde won ñu teewaat fi ren tudde ko ko ñu am ci mbég ñom ñu gis teewaay biñ ci teew ak taxaway biñ ci taxaw ren muy taxaway ba am solo bo xam neewana ñu ko gis ci kuñ tudde bis bi kon ñu ngi leen di sant bu baax di siyaare baax señ Moustapha mi nga xam mo nekk ci bop bi <coughs> doomi señ Sidi Moxtaar ku mel ni Cheikh torok ñom ñep xamna suma limé damay jum waye ma ngi siyaare tëdd señ Baare yëpp gis na taxaway taxaway biñ taxaw ci bis bi ñu tudde seen mam ji baax ja ndax wan na leen ne seen maam ju baax de Cheikh Ahmadou Lamine Bara foofu la nekkoon takk ndigam laxasaay du liggéeyal bàyyam bu baax mu Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba loolu wane nañ ci cër bu mat a mat sax am nañ ci mbégte bu baax am nañ ci yaakaar bu baax ndax sëñ Bara moom mooy ki nga xam moo jubawoon ak ma moo daan def di dindi ci lu gaaw te lu mu wax boromam mu ne waaw kon xel yëpp dal na di tudde giñ ko xam ne ay taw feex rek la ñuy dajal ak ay tayseer sëriñ jig nanu doy nanu te moonu màggal ku mën rikki nga muk malaaka bam sew mbaate nga bew loo ab yonent bam bew say pexe mën la teenu gëm sëriñ bi suñ xola dee ci daam borom baraak bi borom tuba nu doy moo nu gàddu mooy ki nu attan moo cëral mam abdu nun bootu nan ngoy nañ ci daam bu yàgg ca alamul arwaaxi loola mag borom tuba sopp jëmmam di ko bége moo gën ci yàlla gépp jaam gu tege ci yow la xol yi di jage ku ko yëgul gone la guy dawal mbege borom tubaa ci yow la xol yi di jage ku gone la guy dawal mbege bismillahi rahmaani rahim borom tubaa amul moroom jërëjëf borom tubaa jërëjëf borom tubaa jërëjëf borom ragal bi te mën naa tax ba nit amoon bana ñépp tey fafu muy ci buumu ku borom Tuuba takkoo ne talil boppam ku mën tay na moom Tuuba fa wallaahi ànd ak yow bisu penc doy na lay ku juuyoog Sëriñ Tuuba du jëy si gaaya jëm Tuuba bu ne ko borom Tuuba ku di jaat toroxu fasa sëkkët yërëma ndim jaatax ndekon kenn du dem Tuuba rëyi jëf te wéetalool xulo daw jaaxle woon xanaa menn mbubbum ndam mi am yaa ko sant ba waxoona bu dul kon diw mbir du jëm kanam danga jéeye gi min defu yépp tax nga am tuuba mosoo daw bu say saa joofi dégg tey bu koy pontu doon jam doo tutal mu ku waatu baa taloy wax ma soo fat waxatu doo daw yeru ko ragal ku naa tey dafay kabbar na jukkal borom Tuubaa الحمد وشكري مع الكل بيسا لو دون سقط عند سرسالا